seq ak moom reer ngomeen du ma seq ak moom reer saaleen du ma seq ak moom reer tabarakallahu yàlla yàlla dolli sutura yàlla wàcce jàmm ci réew mi yàlla boole ñépp seen xol nekk benn nit romb la xaftaan bu set rekk nga ne lu tax doo ko épargner ba mu jaral la nga dem di ko bindulu pour mu torox te fàtt ni yàlla mi ko bind ngi la tiim am na ñu gëmul ni bëtu yàlla du tegeeku ci ñoom te yàlla ruus na bind lu mu maîtriser wu am na ñoo xam ni gëmunu ko waaw gëmunu ko euh, sëñ Babacar si euh, benn shérif dafa ñëw di ko xool ba mu yàgg mu ni sëñ Babacar dafa yaru ba mu xammee ni ko yedd addabu ma al moo tax mu yaroo noonu waaw dafay bañ bëtu yàlla bi dul teggee ko ci moom jéppi ko mais am na ñu ko gëmul am na ñoo xam ne defe nan ni yàlla moom mu nga ci ay lawraatam rek kurusam ak yooyu waaye ëpp na lool ndax itam rek moo mën a sauver réew mi dama leen di wax ni li xew Sénégal du problème politique problème mu mesquinerie la nañ ko ñaan ah li may faral di wax ñaare bu ma defee eh, causerie ba noppi dinaa ko wax mais fekk na ñaan laa jiital damay wax nous irons tous au yàlla mën na nu ko defal. sëñ Cheikh Tidiane si nee am na ñu gën a jekk ci dem safara waa Sénégal. kon kon nag na ko mag ñi négocier. <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatulah.